su ko defee mbokk yi ñu dellu si ci seen émission tafsirul quran fii ci seen chaîne bi di solution tv ñu ngi nekkoon suuratul baqara aaya juróom benn fukk benn jàpp juróom benn fukk ak ñaar wala jëlee inna alladina amanu aoudu billahi min alsheitan irajim bismillahi rahmani rahim inna alladina amanu walladina haadu wannasaara wassaabiina man amana man aamana billahi wal yawmi al axir wa amila salihan fa lahum ajruhum inda rabbihim wala xawfun alayhim wala hum yaxzanuun sadaqallahu alazim sunu borom nee na xeet yu njëkk yi njëkk lislaam di ñëw dafa am ñoo xam ne dañu yahuutu woon nekk ay yahuut ñu ngi dàkk yàlla ci diine yonti yàlla Ibrahim am ñu dem nekki nasaraan di dàkk yàlla ci diine yonti yàlla isa am ay saabiin ñoo xam ne ñi ngi dàkk yàlla ci biir pensée yooyu diggante yahut ak nasaraan nekkaat fa ay kuréel ci seen biir waaye terewul toujours ñi ngi wër nan lañuy def ba am ngërëmu yàlla ñii ñépp nag bi yonent sallallahu ñëwee fii la leen fekk alquran ne leen bu jàpp ne nekk gi ngeen nekkoon yahud wala nasaraan wala ay saabiin nekk ngeen ko ba pare su ngeen nekkaatee jullit du ngeen am payug yàlla ndax li ngeen nekkoon ci leneen alxuraan ne déedéet su ngeen ñëwee gëm alxuraan ji wàcc ci yonent gëm yonti yàlla muhammad di pratiquer diine ji nii ko yàlla bëggee woy gëm yii ñu tuddee leen ay jullit nga xam ne musuñu nekk yawut musuñu nekk nasaraan musuñu nekk saabiin musuñu nekk majuus musuñoo jaar ci yooyu pay gu noo am di ngeen ko am fu ñu taxaw fayu dangeen fa taxaw fayew mën ngeen leen a ëpp yool sax ndax dangeen am payug nangu diine ju njëkk ak payug nangu diine ju mucc loolu la aaya bi di junj waaye tegtalewul ne yahuut ak nasaraan ak saabiin nag jullit yi ñoom ñëpp a nit ci dëgg ku ci jëf yàlla fay la noo tegtalewul lool ñi ne woon ci lii ku ci ñëw gëm yàlla fay loolu mooy inna alladina naka gaa ñi nga xam ne amanu gëm nañu ne yonti yàlla muhammad mii yonentub yàlla la yàllaa ko yónni mu ñëw ci xeet bi walladina ak gaa ñi nga xam ne haadu dañoo yahuutu woon maanaam ay yahud lañu woon wa nasaara ak ñi nga xam ne ay nasaraan lañu ñu woon wa saabiina ak ñi nga xam ne ay saabiin saabiin yi ñoom ay kuréel la woon ay pàcc la woon ci biir yahuud ak nasaraan mu ngi mel ni ci biir lislaam nga naan ñii ay chiit lañu ñii ay sunnit lañu ak yu mel noonu ay pensée la woon ci biir diine yooyu sunu boroom ne ñii ñépp man aamana képp ku gëm ci ñoom minum ci ñoom billaahi buur yàlla ak la aju ca ngëm wal yawmil aaxiri ak bésu pénc gëm yàlla gëm yonent yi gëm malaaka yi gëm bés pénc gëm dogal yi waaw sunu borom ne yii képp ku ko dëggal ci yéen waa amila saalihan mu jëfandikoo sharia gis nga amul wax ne waaw man gëm naa ne yàlla am na yonent am na sax amee man nag diine bii ma nekkoon laay jëfandikoo déedéet waa amila saalihan mu jëfee sharia yonti yàlla muhammad sallallahu alayhi wa sallam ñooñu day falahum ñeel na leen ajruhum seenub yool inda rabbihim mu tukkee fa seen boroom wala xawfun déetu ragal alayhim ci ñoom walaa hum déet ñoom yaxzanuuna ñuy jàq buñ déggee ñuy waxtaane safara bu ñu tiit bokkuñu ci buñ déggee ñuy waxtaane mbugalu bàmmeel bu ñu tiit bokkuñu ci yàlla génnee na leen ci laa xawfun alayhi wala xawfun alayhim wala hum yaxzanuun wa fàttalikul id aqaz naa ba nu jàppee miisaaxakum kóllëre ak yéen ca tawraat sunu borom nee na ma jàppanteeg yéen kóllëre ne leen da ngeen jëfe téere tawraat parce que téere jëfe cest téere bi yàlla di yónnee ci àddina <laughs> mais yónniwu ko pour ñu koy mëbale rek di jënd ay kaamel di teg sa kër pour lan alquran dañu ko indi pour ñu jàng ko indiwuñ ko pour mu nekk ay meuble déedéet waa tawraat bi ñu leen yónnee tawraat dañ leen a wax na ngeen jëfee tawraat loolu mooy kóllëre yàlla ak jaamam mooy téere bii ma lay yónnee na nga jëfe li ci nekk na ko jàng te jëfe ko ñun ñii loolu mooy suñ kóllëre ak yàlla de wa id aqasnaa bi nu jàppee miisaaxukum kóllëre ak yéen ci jëfe téere bi wa rafaanaa ñu yëkkati fawqakum mu tiim leen ak tuura montagne bi ne leen xusu jàpp leen maa aataynaakum li ñu leen indil bi quwwatin ànd ak farlu ñu jël téere bi sànni bañ ko jàng bañ ko jëfe sunu boroom yebal jibril alayhi salaam wala yebal malaaka boog malaaka mi ñëw rekk déqati benn montagne déqati benn montagne ñun nag montagne yi alxuraan di jàngale ak montagne yi nu xam du benn du benn de ñun xamuñu montagne ñun fii ñu nekk nii Sénégal Sénégal bu la nekkoon nga ne amul montagne ay tund ngor la ñuy gis fii di ko yéem naan montagne ma ma ne laa ilaha illallah arab yi dañ daan jaaxle bu yàlla doon tukkal àddina montagne yi fan la koy def ndax rëy montagne yu huit kilomètres longueur montagne mu gudd moo xam ne mën nga départ yi fii Hmm? daw huit kilomètres lépp benn montagne bu tàllalu lay doon guddaayu montagne boo xam ne boo koy xool da ngay téen mën na ma un kilomètre wala cinq mètres ci kaw ci guddaayu montagne yaatuwaay ba ak rëyaay ba ay kilomètres ngay dox xam nga montagne yooyu rëyaayam dafa jéggi dayoo montagne boo xam ne nii tey boo ko déqati woon nii nga yëkkati ko boo ko dëppee ci ndakaaru da koy ub ni ku bëri cin di ubbee cin montagne mu toll ni ndakaaru xam nga loolu du montagne yu jàmm montagne yu mel noonu la yàlla daan yebal malaaka mu ñëw rek yanu montagne bi ne da koy dëpp waa dëkk bi c'est-à-dire bu ñu leen tëjee rek dañuy dee jël montagne bi rek dëpp ci dëkk bi mu tëju ñépp tege degewu ci biir sunu borom nee na malaaka yëkkate montagne bi ba tiim dëkk bi ne leen lii de am mbugal la mu tiim seen kaw lenn doo nga koy teggi ngeen nangu jëfe li leen yàlla wax ndax mën ngeen a jàpp téere bi jëfe ko ni leen ko yàlla sante ànd ak farlu montagne mi jógaat defu leen ko mu këpp ko seen kaw ñu ne ko wallaahi boo nu ko teggilee rek nu jëfe téere bi waxal yàlla na nu baal rek wallaahi bu nu ko teggilee rekk nu jëfe ko ñu wàcce xeer bi teggi leen mbugal ma ñu toog jamono <laughs> dellu ca lañ ne woon moom la sunu borom di wax ni wa naa ñu yëkkati fawqakum mu tiim leen ak tuura montagne ma xeer wa ne leen xudu jàpp leen maa aataynaakum li ñu leen indil bi quwatin ak farlu wadkuru na ngeen jëfe maa fii li ne ci téere bi la laallakum amaan na yéen tattaquuna di ngeen ragal yàlla waaye gis nga ñu jooytu jooytu jooytu jooytu ba yàlla teggi montagne ma ñu dellu ca lañ nekkoon summa tawallaytum gis nga summa tawallaytum topp ñu dëdduwaat yàlla min baadi daalika ginnaaw bi ñu fasanteeg yàlla kóllëre gog ñu topp téere bi jëfe li ci nekk summa tawallaytum ñu dëdduwaat doomu aadama dafa ñàkk jom ci ñi ma ko sañ wax ngeen baal mi ngi mel ni ku ko doon fàttali xoolal bi fi corona bi jaaree <laughs> ñëpp sérieux ndeysaan corona daal ku ko mënoon defaat film arriéraat ko ñu koy seetaan damay ragal di nga reetaan ba sonn boo duggee ci barab boo oh, sax ñëpp daw génn abal la ndeysaan cay yàlla ko daje gémmiñ gi ñëpp réglé nag coccu kenn kuy dugg raxasu kuy génn raxasu ñi laal sel kenn du nuyu kenn ku nekk kuul réglé ñii di ñaan ñii di saraxe ñii dugg ci jàkka yi ndekee yoo dañ bëgg yàlla teggi ko rek bu ko teggee ñu ne ca la ca woon am ñoo xam ne xaaruñ feebar bi jàll sax ñoom ci biir feebar ba ña ngay rong ci suuf di sàcc gis ngeen rapport yi épinglé gars yi ci Covid bi xaalisu Covid nu ko nit di sàccee xaalisu Covid man ana rapportu Covid yi sax moo ma jaaxal man fan la rapport yi nekk procureur rapportu Covid yi fu mu toll sàcc yépp yées sàcc yépp a bon waaye sàcc bi gën a bon mooy sàcc Covid te loolu ay. ay rapport a ko génne de du ay nit yuy waxalaatu ay nit yuy wax ci mbedd de ay magistrat ñoo dem gëstu gis ci ministère yi ndekk jamono Covid bi nit ñi di daw di nëbbatoo ko làqatu am na ñoo xam ne ña nga ci ay surfacturation di luubal ab xaalis di débloqué ci banque yi ay millions yi millions yi millions yoo xam ne ci aji feebar yi la waroon a dem ak ñi nga xam ne doon nañu liggéey seen liggéey yàqu ñu ne ko tuŋaañ te ñooñu ñi ngi ci plateau yi di wax ak nit ñi di leen xool ci bët ñàkk jom loolu même bu ko justice àttewul foog nit ñi xam ne ay nit yu ñàkk jom a ngi noonu nit du sàcc as gor du sàcc benn rawatina ngay sàcc xaalisu balaa man daal bu leen jigee dana ma jaaxal bu leen jigéen dana ma jaaxal waaye gis nga di takk gémmiñ ak di féetaloog nit ñi raxasu leen toog leen seen kër yi ndeke yow bëggoo lu dul bu gaañu toogee ci kër yi nga dem ca banque yi di yëq rek waaw su ma tawallaytum topp ñu dëdduwaat min di dalika ginnaaw loolu waa nañ nañ génne rapportu Covid bi waay fokk ci ñu xam luubal googu fan la ñu ne ministre yi la ministre yi ne ne du ñoom ñu ne dash la nay dash nay ministre bu mu ci mën a doon nañ goqi xaalisu Covid bi waaw waaye tawat yee ko moomoon ak ñi seen liggéey yàqu woon ñu war leen a dimbali mhm. fa law laa bu dul woon ngëneelug yàlla aleykum ci yéen wa rahmatuhu ak yërmandeem wallahi kon mbugal na leen bu yàgg xam ngeen ne xaalisu covid ku ko lekk covid moo la waroon a rey waaye mbaaxug yàlla sutura yàlla waaw mbaaxug yàlla sutura yàlla mu bàyyi leen fi ngeen di doxi soxla delloo ji leen xaalis bi kun ci àttewul it amal jomi dem delloo ji xaalis boobule ngir yàlla kooku ci delloowul fii di ko delloo fa fële de wa man yaxlul yati bi ma xalla yowm alqiyaama sunu borom nee na waaw sàcc de moom am na ñu am fitu def ko waaye na leen leer na lu ngeen sàcc fii di ngeen ko delloo si yowmal xiyaam mhm. sunu borom nee na bu dul woon ak mbaaxug yàlla ak yërmandeem la kuntum da ngeen nekk minal xaasirina bokk ci way perte yi mhm. maanaam bokk ci way alku yi rek ne Covid mënoon na laa yóbbaale bu la Covid yóbbuwul it leneen lu yées Covid mbaa lu ko gën a garaaw ñëw buub la yóbbu mhm. wa laqad alimtum alladina i'tadaw sunu borom nee na wala qad alimtum xam ngeen alladina gaa ñi nga xam ne daw ñoo jalgati ci yéen te yéen xam ngeen ñi jalgati ci yéen xam ngeen ñi doon sàcc xam ngeen ñi doon surfacturé wala boog ñi doon gonfale feebar yi boo amee juróomi cas ne am nañ diis cas soo amee dix cas ne am nañ trente cas allahu akbar ngir lan tiital nit ñi ñu gën a tiit gën a toog ngay gën a tibb waaw suñu borom na xam ngeen ñi doon jalgati ci yéen parce que rapport yi génn na leen waaw wala qad alimtum alladina atadaw yéen xam ngeen ñi doon jalgati ci yéen yàlla ko wax dañoo ñu rapport képp na leen bu ñuy pëccatiku naan daas ya la bu dul loolu nga téye daas yi boo téye daas yi ñëwoo ministre yi waaw minkum ci yéen mhm. xam ngeen ñi nga xam ne ñoo jalgati minkum ci yéen fi sabti ci rëbb samedi ñooñu yàlla da leen a tere woon rëbb samedi ñu ne leen samedi bu kenn napp ci géej gi xam nga ab mool nga ne ko bul bul nappi géej te samdi bi leen yàlla tere samdi boobu géej gi day fees dell ki jën mën nañoo natt nag napp dimanche ba lundi wala boog waaw dimanche ba àjjuma ñu ne samedi noppalu leen waaye samedi bu ñuy noppalu rek jën yi ñëw fees dell ci géej gi ñu xool ba yàgg ñu ne sa yàlla lim ñu sant dëgg la nag waaye lii moom mënuñ koo seetaan nag wax dëgg yàlla mënuñu bu ñu nappul samedi jën yi ñëw ci buntu géej gi di yërndoo kenn du napp léegi daal saa waay affaire bi foog ñu seetaat ko waaw ndigal li moom baax na mais nag mënuñoo ñàkk napp samedi dem jalgati napp samedi loolu moog ñi doon sàcc ci Covid bi ñoo yam moog ñi doon wax ne xaalis bi mënuñ koo ñàkk laal benn lañ sunu borom nee na yéen xam ngeen ñooñu doon. jalgati faqul naa ñu wax lahum ñe leen kuunu nekk leen xiradatan di ay golo yi na ngeen di way alku sunu borom nee na ca saasa lañ leen wax ne yéen doon leen ay golo ñoom ñu doon jalgati di sàcc ji jaar ci suuf di rëbbi ak di nappi bésu di bi yàlla tere ñuy nëbbutu jaar ci suuf di nappi di ñépp yàlla soppi leen ay golo ay ñu doon sàcc xaalisu covid bi bu leen yàlla defoon golo ndaw gàcc gu rëy subhanallah te sorewul a ah. ñii dañ leen tere samedi ñu jaar ci suuf di nëbbutu di sàcc di nëpp samedi parce que jën yi bare nañ fa yàlla soppi leen golo doy na waar léegi nañu xaar ba dellu si fa jaal na nakaalan li ma bayna yadayha wa ma xalfaha wa mawidatan lil muttaqin sëriñ Chouaib bu nañ teg foofu sunu baaraam bu ñu dellu si waatee ñu yeggali ñi doon jalgati di sàcc ba yàlla weer leen soppi leen ay golo wasalaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatuhu